kër ji bi sukkey ñu génn maa kam ci Thierno Aminat li ñu waral daje bi tey dañu ne dañu ñu jël dellanu ci biir Mboro te nun nañu bay ci daaru ba nu demee daaru ba léegi amuñu benn jafe-jafe bu jëkk dina amoon ay poros suñu tëral di di di dagg suñu suuf nun ba nu demee daaru jàmm la noonu nun nañu nu bay daaru li dalee kër Amadou Djimil ba kër Jibi Sukkey ba kër Idi Amad ba Ousseynou Sy ñoo ma délégué bëgguñu dem Mboro nañ leen bay daaru magoonkat ba mu taxawee ba léegi yàqalul kenn dara yàqalunu suuf mu yem sumu wan a yëpp nu ne ko jàppale bañ nañu ko ba nga xam ne ah, fu fu fu bureau am électoral bu Magor ak président moo koy gañ cent pour cent président yëpp nañu nu bàyyi ci Mboro ndax nun ñamoo nun ñamoon nañu nu Mboro kon nañu nu béy Daaru Kuddus loolu daal lañ doon wax wa kaw de man denoo toog rek ñu ne denoo bëgg tey bu nu yóbbu Mboro it suñu suuf dong ndax fu nu dem ñu ne amuñu suuf nun tam amuñu suuf dintee béy di ci sàmm di ci dëkk kon magóor mi nga xam ne ba mu ñëwee ba léegi jàmm ak salaam lanu may nun dëkkandooy am jàmm nañu nu bay foofu président ak sous préfet ak yëpp nun bëggunu dem mbooro nañu bay daaru ko dus denoo denoo denoo denoo fas yéene def li nu doon na sunu maam mbéy ak samm ak dëkkin bu rafet te it bu élection ñëwee ñu woteel président cent pour cent te ki nu bëgg mu ànd ak président mu ñu wotal ko mooy Maguur. a ah, man de danoo toog ba tuuti ñi nga xam ne ñoo nekk ci eh, ci mairie yi ak ñuy ñëw ñu ne nee nañ da ngeen di dem Mboro. sous-préfet maanaam nun nekk sous-préfet man moom jotuma jotuma ak moom. kayit lañ waaw maanaam daal ñi nga xam ne moom bu ngeen demee di laaj. ci waa mairie yi daañu leen wax. waaye nag formé nañu ñu ngi loo bëgg yóbbul Mboro. te nun xam nañu li ñamoon ci Mboro ba nu tàggoog Mboro dina am jàmm ak salaam. maanaam daal eh, nee nañ am na coppitaat bi nga xam ne daañu leen ko leeral waaye nun noon waa waa waa waa Kondiog Bonnoog Ndenag yooyu yëpp dal wëññi nañ waaye nun daal soxla wuñu dem Mboro noonu Daaru Kuddus lañu wut kay waaw dañoo am commune ko Kuddus am commune Mboro am commune nee na nun bëgguñu commune Mboro daar Daaru Kuddus lañ li soxla président de de de Jëmballo sunu son sama son mu ngi commencé saaw bëggul gay ni chef yi fukki chef de village ak juróom-ñaar ñoo fi fukki chef de village ak ñoo fi nekk tey man maay seen président jox nañ ñu seen kàddu ni li ñuy li ñuy fi ñuy fexe nañ ñu jégal bàyyi nañ fi ñu nekkoon bu nu mboor a séddoo ak daaru bu tey ba séddoo ak daaru nun daaru moom day tey moon door noonu suba parce que daaru bi biñu nekkee moom rek jàmmatul dara te xam ne lii fi nekkoon bu njëkk am na ñoo fa dañoo ñëwoon indi yow la ay nit ñu ñu ñu jaxase di dagg suñuy suuf di jax di maye naan projet sàngam te yëpp daaru def daaru ma ko def ma ko deful loolu may nanu jàmm chef de village yëpp maa seen kàddu maa seen nanu ki fi nekk may noonu jàmm may nanu bat ma moo ki njabootam nangu nangu village lañ leen wax ñooyu dem fële ñaata lañ gis nga fi ne bu seen pexe ju tey hmm. si man li ma njot tey ma jaay day sàkk daaru sàkk eh, eh, mbooru sàkk te bu keroog daaru day jeexal suñu suñu sama son loolu nag d'accorduñ ci chef village nee nañ d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ba ñu ko déggee ba ñu ko déggee nee bu njëkk dañ ne dañ ne président wooteel réunion mën leen déedéet bala ngay xem bala ngay ëff gémmiñ sàmm da ngay xam li mu walis nan déglu tuuti yëf yi dina ñëw comme jege si ne nag ni ngeen xam ni bis boo xameen jël nañ beneen décision bu dul bu dul ba banu fii lu nu lu nu jànkuwanteeg état bi ëllëg luñ ci góob dina daanaka mën a gar incha allah parce que parce que nag parce que nag bañ bañ bañu fi dara nag ndax suñu war a gi kat mooy suñu lépp am na fi teraanga am na fi xel mi dal kayitu juddi PS yomb na fi kayitu juddi yomb na fi xuloo amu fi xeex amu fi bañ ne ba dañ fee fal sax ay président dox jàmm fat boo xam ne bii bu fi ceew amoon suñu biir defal nañ équipe boo xam ne ñoo ñoo ñuy ñoo ñuy ñoo ñuy défendre su diggante euh, ak gendarmerie gendarmerie xam nañ ci dara dégg nga tey buñ feerante amoon tey man mii may président zone bi Demba Sow mii moo topp ci man dégg nga ñun ñooy dem rek la ko cent pour cent tribunal fii sanami du ci am yoon tribunal du ci am yoon te lépp yàlla taxawaayu daaru ci lañu ko jëlee conscience boobu ñu am nag ak yi fi jëre amoon bu njëkk gis nga social bi bu njëkk benn mbooro di lif bu njëkk social bi moom moo amee sociale dañ ko daan yemale biir mbooro duñ si yëg dara tey nag su bi bi magóor kan ñëwee ak sunu sunu président bu baax bi lépp yaatal nañ ko lépp yaatu fi ne bokk nanu bu njëkk bokk nu woon léegi nag bokk na ci lépp kon nag fi nu bokk nag nee nañ ñu bàyyi nu ci bàyyi nu fi nu dund ak moom incha allah loolu lañ bëgg. kañ ngeen wax ngeen wax bis bi ngeen war a dem. nee na waxaguñ ni bis waxaguñ bis lii avertissement la rek avertissement la ñuy def ni bis dégguñ ni bis dañ leen jox sunu sunu sunu kàddu gu njëkk bii mooy sunu kàddu gu njëkk mais li ci li na lu ñu denc loo xam sax euh, xamu leen waaw yëgu leen ko parce que lépp ngi sunu gànnaaw incha allah lépp jaral na lu ne lu ne fukki seet dara ak juróom-ñaar man maay seen président seen tur laa wax boo waxoon tey dana boo waxoon kenn bu ñëwee li ko jëlee saaw ba gol gaynde mooy lectrar su su suuf bi nga xam ne moom la ñëpp di xool nee bu doo jigéen tey dama naan ñëpp ko soxal tey jigéen bu jar la mooy lectrar bii tey waaw kon nag nañ ñu baax foofu nañ ñu baax nañ ñu baax man Cheikh Mbacke njaay laa tudd di waxe ci turu Serigne Abdou Lahat ci diggante Touba Ndiaye ak sanc Touba ak Naylu moom lañ tuddee àndal 2 mu mel ni dañoo jot benn xibaar buy wax ni su préfet dafa am ñu mu àndal ñu ñëw wax ni dañuy dem maire yi dañ dugal ci biir mbooro tan nun nag waxuñu nu dara dañ ko dégg nii rek te loolu moom damaa defe ni nit ki am na lu boo ko naree ci moom bala nga koo def war ngaa waxtaan ak moom te nag nun àndunu ci tey nu ci bu subaa ànduñu ci bu ëllëgee ci turu Cheikh Abdou Lahad mi nga xamante ni mooy xalifa bi moo fi moo may yónni man Cheikh Mbacke laa tudd te ci kàllaamaam laay waxee nun daal soxla wunoo dem Mboro di dem ci mairie Mboro ñoo ngi ci ginnaaw maire Magor Magor Kane ndax it ak lu mën a xew moom taxawu nanu jàppale nanu te yàqaluñu dara ndax nag ginnaaw nun Touba Ndiaye nekk bis bu ne nu ñëw jëm si mbooro ci marché bi te lii nu gën a metti bis bu ne rek mooy ñoom bu buñ buubee ñun waa waa mbooro Mboro buñ buubee dañ ñu koy xëppal ci suñ kaw yoon wi amuñu fu mën a jaar waaw kii buub di la xëppal si bu nee damaa ñëw pour dimbali si la est-ce que loolu xel dina ko nangu xel du ko nangu tey amuñu fu nu jaar ndax seen mbalin mi teg teg nañ bët suuf si amuñu benn bëgg-bëgg rek lu dul pàccoo ko mu jeex te nag loolu duñ ko def wala suñ bakkan yi du ko fekkee am na fu nag bëggunu faa yegg ci wax ndax mbooloo dafa ne ci suñ ginnaaw kon bëggu nuy waxee ci xadar bokkuñ bëgguñu di wax ci àll mais président moom lii noonu ñi nga xamante ne noo dëkkee gox bi àndunu ci tey àndunu ci bu subaa ñu ngi ci ginnaaw président maire Magor kan lépp loo xamante ni nii ànd na ca noonu ànd nañ ca waaye lu àndul àndunu ci te mbir mi yëgunu ko buñ leen dugalee mbooro gars yi seddoo seen suuf non lañ bëgg ñëwuñu fa pour dimbalinu danu faa bëgg ñëw pour dimb dimbandikoonu waaye ñëwuñu fa pour dimbalinu parce que ñoom li ñu occupé defaruñ ko ba bëgg a defar li nu yor nun ndax kuy buub mbalit ku mënta lijjanti mbalit man ngaa lijjanti ab dëkk mënta nekk mënuta nekk te seen mbalit mi noonu dañu cee sonal sakk nañ suñu yoon yi kon bu ñëwee ni dañ leen di dimbali bu ñu doon dimbali ci mbalit mi la ñuy commencé bañ ko jël ci suñu kaw yoon wi te jal gi neexunu kon nag président maa ngi lay yëgal ni la lii moom nun ñu dëkke gox bi nag gàtt nañ ko gas ba mu xóot ñu suul ko fañ ko jëlee woon nañ ko fa delloo xam naa nag ay pexe képp la waaye nag ay sénégalais lañu duñu ay du ñu ay du ñu ay éthiopien ay sénégal lañu duñu gas nag duñu gas nag ay pax di ci dugg duñu def ay tàgg di yëg ci kaw comme garab yi duñu nekkunu ay malay baanu doon ay janaaw di naaw ci suuf si la ñuy dëkk ci la ñuy bay ci la ñuy defee lépp bu ay nit jógee jógee ci àll ba nag bëgg a jël ay buum def ko ci sun baat yi noo xam ne nag kii daa bëgg a déclarer guerre bu boobaa la mu bëgg bala mu ko mën a am day jaar ci suñu bàmmeel yi ba noppi wasalaamaaleykum. c'est Magor Kane maire de la commune de Mboro de Darou Khoudoss donc euh, li ñu fi dajale tey du lenn lu dul rek euh, jaaxlewu population commune de Darou Khoudoss yi nga xam ne ñoo jege commune de Mboro donc euh, ci loolu defe naa ni demande bi mbooro yàgg na ko def. fexe daal bëgg ñu yokkal ko moom territoire am parce que nee na dafa xat nooyeetul mais loolu nag il faut ñu xam ni loolu ñun créé wuñu ko ñun ñu toog fii créé wuñu ko peut-être ñoom ñu fa nekk tamit créé wuñu ko ñu ko créé woon ñoom nekkatuñ fi donc par rapport ak loolu nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jege commune de Mboro amul benn village boo xam ne nangu naa tey dem ñu rattaché kook Mboro loolu ñoom kenn bëggu ko donc voilà te yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko dox bi ñuy ñëwee commune Darou Khoudoss ba léegi sincèrement ñu ngi am seen jàmm kenn sonalu leen ci dara te vraiment nag loolu tamit il faut ñu ci bàyyi ci xel donc Mboro nee na dafa xat Mboro rek xatul Darou Khoudoss dafa xat donte bokk na ci communes yi gën a yaatu mais ci biir loolu da ngeen di xool ni maanaam suuf si fi nekk mais commune du domaine national kese fii type de sol yëpp am na fi. maanaam domaine public maritime zone de restauration beeg domaine minier yeeg lépp a ngi fi kon daaru li ko desee si domaine national bëriwul même ñun souvent dañuy rencontrer ay problème pour si yenn euh, bëgg-bëgg yu ñu xam ne dañ koy def ci zone bi loolu nag bu ko amee kon Mboro rek amul problème boobu daar Daaru Xudoos am na problème donc suñuy bëgg regle nag nañu regle lépp. comprendre léegi nag Mboro bu dee dafa am ay projet yu mu bëgg a installé wala leneen suufam doyul mais kilifa gi tout le ñu dégg ko muy wax lu jëm ci wàllu na fexe communes yi intercommunalité yu mel noonu booloo jaxasoo bokkoo mën a liggéey lëkkaloo ñun ci sens boobu nag la ñuy woo commune de Mboro mu ñëw Daaru Xudoos suñu xool nu ñuy lëkkaloo par rapport à tout sortes de projet bu ko defee nag jàmmaam mais nag lii nga xam ne nag moo ñu fi bàyyi mooy sincèrement bëgg-bëgg askan bi kon nag dañ ciy taxaw téem fexe daal ba loolu moom du am. li wóote woon ah man déet moom. déet moom defe naa ne amul benn xale tey jii cinq dix ans boo ko gisoon sax ñu jege ba ko ne wax waxi mboor mu ne dew ma mboor amul donc loolu daal moom mooy problème yi voilà merci beaucoup jërëjëf voilà donc nag kilifa yi nag jóg nañu muy chef de village yi muy population yi ak kilifa diine yi ci zone bi tamit ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seen kàddu lenn la bu ñu sañoon ñu bàyyi leen daaru xulos bañ na rattaché mboor voilà Donc voilà, je donne euh, euh, quelques, informations sur euh, le découpage que nous avons entendu il a de cela quelques jours. Donc voilà quoi, il y a beaucoup de choses qui sont dans la localité qui ne sont pas informés. Mais malheureusement, on a besoin d'informations. En plus, en dehors de l'information, on, ne peut pas être rattaché à la commune de Mboro. On veut toujours rester dans notre commune des éleveurs et des cultivateurs et des pêcheurs. à Mboro, n'a pas besoin d'aller à Mboro, qu'est-ce Donc en euh, les informations qu'on a eues, de rien, surtout ils nous parlent de terre, parce qu'à Mboro, il n'y a de terre. Pourquoi ils demandent de terre d'Arabes Nous, ce qu'on a comme terre, ça ne nous, a même pas souffert, parce que nous, on dans la zone maritime avec la zone de restauration. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Après, ils viennent pour chercher notre terre, notre culture maraîchère. C'est pour cela tout a de, la rattachement des villages à la commune de Dar au, au rattachement, de, à, à, la, commune de Mbouan. Donc on veut toujours rester à, à notre commune qui est dans la, la commune de Dar Combien de vues découpage Parce qu'ils parce que nous a pas encore officiellement reçu la notification. Donc quand même on nous a dit que des fast boys à Sao ils vont rattacher dans la commune de Mboro ou il a qui vont à la commune de Taïbendiaï. Donc, euh, c'est des dizaines de villages. Plus de dizaines de villages, oui, plus de dizaines de villages qui sont, euh, concernés. Euh, surtout, la littorale aussi. Vous refusez catégoriquement catégoriquement. c'est le alerte comme ça qu'on fait. Mais, après, si, si, si donc voilà, tout le monde va, sortir aussi. Bien sûr, Mais c'est juste on avait les, autorités pour leur dire que personne n'est d'accord dans cette, décision. Donc, pour ça. qui est responsable de tout Nous, on peut pas dire telle personne qui est responsable de tout ça, parce qu'il y, a le sous-préfet qui est venu avec, euh, avec ses agents qui sont faire euh, un tour. Donc voilà, depuis, les jours, là, les gens sont en train de, poser aussi des questions. Pourquoi ils, nous, rattacher à la commune d'Embourg Voilà. Donc on peut dire que euh, tout ça, fait partie. Parce que nous, malheureusement, on ne donne pas les informations. Parce qu'avant il faut passer l'information. Parce qu'ils devaient quand même informer les chefs et les expliquer, euh, mais malheureusement, n'a pas été le cas. Parce que les périodes ils ont enlevé les, tableaux. Mais pour le moment, oh, c'est mis en stand mais on n'a pas aussi la suite aussi. Ah, bien sûr, nous, on compte rester quand même. On va pas bouger, nous, on compte